Sénégal 4 TV yow yakum. ko ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu vous gan nga ci kër gi nag le bouton abonnement bi teg bul fàttee activé cloche de notification bi ne ngir bañ a tardé ci ay vidéo yi ni def ay et maintenant bon visionnage maa leen di bëggee waalu làmba bàyyi na nga am jaamu Izey maa ngi bëggee ñëpp mais hmm, information bi wér na kay man gis naa Babacar litti Babacar Loto gis mu def ko istati eh, waaw bind ni bi taxaw na na ko moom def na ko sax Bombardier ak Balla Gaye fi ñu toogee yëpp ay signé yëpp na ko istati ah Malick Thiandoum Bécaye Mbaye ñoom kii Gaston Mbengue ñoom ñu ngi toog ko de bi taxaw de. Eh, kooku mooy ah ok c'est confirmé ah ok parce que information bi léegi laa ko jot quoi ci Sénégal quoi léegi boobu noonu quoi ok. waa ñu ngi nii quoi c'est confirmé c'est déjà confirmé quoi ah gis nga affaire bi daal yéeme na de yéeme trop trop ça c'est déjà confirmé ah. weer na combat bi taxaw na kay Babacar yi seet na ko Bombardier ngi toog Balla Gaye ngi di wax ko boobu kay taxaw na waaw yàlla xam na ko Bombardier ngi toog Balla Gaye ngi toog Gaston Mbengue Malick Thiandoum di wax waaw ñuy defal caméra yi noonu na de man kay xaw ma koy perte a na seen. non Cheikh Sarr loolu moo fi sës Eumeu Sène mooy doon le grand perdant léegi wax ma Eumeu Sène kan lay waxuma Eumeu Sène kan lay bëreel kay mooy doon le grand père Randy kay Gaston moo ko trahir <laughs> Gaston Mbengue la doon king de l'arène non taala loolu la sax Eumeu kay mooy le grand père moom mooy perte moom ah mais dara na dem jël booy mu bëre ak ñoom na dem jël booy waaye gis nga de mais surprise bi dëgg dëgg dëgg Eumeu la quoi franchement kenn xalaatul dina ñëw ba nekk grand père kon instant bo mbar ki griborro, Bordeaux xam naa dem jël fa la de guerre léegi ama seen toog xaar loolu kese moo fi sës <laughs> non ama seen doon grand rank kay gënalu ñu di mais parce que bo xolé bo xol mo fi mo fi de ama sen moom moy toog xaar moom mais Gaston Mbengue nak warul doxalee ni quoi franchement warul doxalee ni nak. non ama sen Eumeu Sène ak Bombardier taxaw na de combat boobu taxaw na ah wax fii de moom mooy combat bi taxaw na wax nan waxi góor daal ba teg loolu de laa dégg Eumeu Sène wax bu ma juumul. mais Eumeu Sène dafa écarté on fii nii la déggeer ak Balla Gaye daf leen écarté woon de léegi xaw ma ndax ak la déggeer dafa jëlaat décision pour bëraat ak moom xaw mu demee mais Eumeu Sène écarté woon na la déggeer de te la déggeer ak Gris Bordeaux sax dégg na am na beneen promoteur bu ko doon dox rumeur boobu tamit déggoon naa ko. mu ko la de do nga baaxub sëriñ de la de do nga baaxub sëriñ la wax mom moom du perdre fi ne nii am combat fort. Cheikh Sarr Eumeu Sène jotul ben avance de Eumeu Sène lu mu wax carrément dafa leer mu ne carrément waxtaan na ñàkk Gaston ba tënk ci ay kàddu Eumeu Sène waxu la carrément dafa jot avance de. mais la de rek la Lac de nekk fi essayé la de la Lac war na bëre bëre mu har envoyé na Babacar vocal pour m'envoyer vidéo ma dugal ko ci kër gi ngeen gis ko kay dama maa ko bëgg capturer mais sama téléphone nangu ko capturer dafa bañ mais dama doon capturer mais dafa dañ sama téléphone mais la de guerre nag nuyuwaat naa leen ba ziar leen maa ngi déglu gars yi mais apa yi Eumeu man na bañ a nekk grand perdant bi Eumeu man nañ ko tëgg digganteem ak Lac de Guiers wala man gëmu ma ne Eumeu Sène mën naa nekk grand perdant bi de bu fekkee ne lolu amna wala Lac de guerre dafa am combat en tout cas benen cible bi fi déssé Eumeu Sène nak moy digënté man Lac de guerre bu dé balagay Gaye ci taxaw na. voilà <laughs> Mamadou Sow li nga wax am solo dé waaw parce que mooy nak boo doon xol départ bi xeyna na fi woon ak kenn accès bu tax mu wax dara ba doo ko tontu wala parce que ku ci ne da nga fi ñëwoon pour défendre sa mbër mais da ngay dem ba yàgg ngor gi ngeen di waxtané Ah, wala dignité bi ngeen di waxtaanee wala fulla jeeg fayda ak responsabilité yi ngeen di waxtaanee day tax sax yow relation bi ngay amook moom amoo ko sax mbër mi nga xamante ni moo tax yow nga ñëw fii parce que tey fi man eh, da ngay dem ba nga am accès ci nit koo xam ne si li nga séq ak moom séqoo ko sax mbër mi tax nga dugg ci allu bi wala commentaire bi tax nga dugg bu boobaa comme li nga wax moo ciy nekk sa mbër moomu ngay wax noonu ki ngay waxantaan ci groupe bi donte eh, bokku leen mbër moom moo lay gënal vraiment lu am solo li nga wax it am na parce que bu fekkante da nga dem ba ben moment duggo ci groupe bi nga gis ay nit dila wo telephone ni dila envoyer vocal ni dila def ay appel whatsapp dila laaj ba xam ci lo nek ah, lolu su deme ba meuna am nga xamne kon selafami. la famille motax bu nu defé touti effort rek lepp meuna rafet nak touti rek touti rek moy manam ñu am esprit de dépensement ku xawa genn génn borne yi comme man mi ñu woat la recadrer la ah, kon dina dina dina gëna bax quoi waaw ku xaw a génn borne yi ñu woola ci suuf bu nu ko séqee yow lu nu mën a wax ci kaw lu rafet ñu wax ko lu nu mën a régler ci suuf ñu wax def ko aussi day gën a rafet rek voilà mais nit ñi moom ñu bokkuñu aussi ku nekk ak sa xalaat ku nekk ak esprit bi nga bi la yàlla jox mais fu ci mën a doon rek nan nan ko jéem a jàppee mu ni mu ni mu mel quoi. loolu moom xam nga rek xam nga maanaam mbooloo fu mu daje dina am ñoo xamante ne yàlla xam na ne dañuy dañuy ki rek te maanaam. Ah, ci wax rek saa ñu séq dara wala mu def leen dara dañ koy en rek moo tax lu ndaw mooy am rek waaw ah, li nekk ci seen xol la ñuy wone maanaam doomu aadama mënul wone lu dul li nekk ci xolam nit ki lu mu def rek da koo dencoon ci biir xolam te maanaam bu fekkente ne kii neexu la wala kii moom ay mbiram jubluwu la lu ndaw rek lay def nga attaqué ko ci ci erreur wala loolu te loolu jullit ci boo xam dafa war a daw loolu waaw am na loo xamante ne moom ah nit war na koo moytu parce que bu fekkente ne dañ ne ne sax boo meree war a wax te nga xam ne boo waxee wax musiba nga noppi moo gën waaw parce que am na yoo xamante ne daal yàlla xam na ne man damaa gisul lu ko jar ci koo xamantel sax waxuma la ñoo xamante ne nag yàlla boole na leen ñii rek ah mais kenn ci musul gisante kenn wala ñi ci gisante lu raar la. man mun naa group bi ba mu daj Ousmane laa xam ne Ousmane kooku fu ñoo foondoo ñoo defandoo lépp mooy Seydina Ousmane waaw mais à part kooku moom. Hmm, Diop le maire waaw kay nag yow dégg nga ma man foofu laay waxee waaw foofu lay waxee waaw ku ne xam na ne man bi mu fi dugg rek ci mbojj Modou laa duggoon loo wax Modou duma la muñal virgule de lu mu lu mu lu mu laajoon dama koy def. waaw mais dama dem ba nga xamante ne tey gii su ma toogee tuuti fan su Balla Gaye moo may woo wala am ma see naan ma yow ah génn nañ la dégg lan moo tax fans Modou Lo sax nu ma woo ah da ngay dem ba nga xamante ne nag kon da ngay xoolaat yenn wax yi parce que am na wax yoo xamante ne tamit man moom wax dëgg ci yàlla mënu ma koo teg ci nit te bugguma tamit nit teg ma ko parce que dafa am loo xamante ne dañuy xam ne ñun lii ñun ñëpp ñoo ci bokk yem. waaw foog nag am na loo xamante ne nag bu amee foog tamit ngor day boo ko jiitalul tamit di nga def toujours musiba parce que koo xamante ne bu la déggul wala appel whatsapp bu la wooyee appel whatsapp demul mu mu jënd crédit dem wala appel direct kooku yëg na la ku lay defal loolu yëg na la kooku waratoo def luy yëngal xolam baa luy jógal xolam parce que nit ki boo dëkkee ci toujours ci wax lu ko naqari bu nekkut nekkul sa noon tamit dootu ko sori de parce que nit tamit mënul yor xolam toujours ci lu ko naqari rek nga koy wax bu yàggee rek noonu day daal di am man foofu lay waxee mais commentaire mooy axlu lamb waaw mais nag nañuy sóoraale waaw nañuy sóoraale lu bari ñuy rafetal tamit waaw te ñuy moytu. Mamadou Sow jël Cheikh saar rek en ko lu mu wax rek mu xëpp ci kaani ah lu Ibrahima wax donte rafet na mu rafetal ko nañuy moytu genre yu mel noonu. weer na combat bi taxaw na kay Babacar seet na ko Bombardier ngi toog Balla Gaye ngi toog Malick Thiandoum di wax combat boobu kay taxaw na waaw yàlla xam na ko Bombardier ngi toog Balla Gaye ngi toog Gaston Mbengue di wax waaw ñuy defal caméra yi noonu. taxaw de man kay xaw ma kuy perte Eumeu Sène non Cheikh Sarr loolu moo fi sës Eumeu Sène mooy doon le grand perdant léegi wax ma Eumeu Sène kan lay bëreel kay mooy doon le grand perdant di kay Gaston moo ko Gaston Mbengue la doon king de l'arène non taala loolu la sa Eumeu kay mooy le grand perdant moom mooy perte moom ah mais dara na dem jël booy mu bëre ak ñoom na dem jël booy